doo ko fekk. comme nga ko pare garaawul quoi. waaw. mbooloo mi maa ngi leen di nuyu bu baax baax di leen sant bu baax a baax a baax di leen woon leen mbégte bu màgg a màgg lañu am ndax sport moom lii day jëriñ sport brassage brassage bu war a jur ci fraternité nit ñi booloo doon tamit moyen d'éducation la war a def ko aj aj dara te doo suñu booloo xamante ne am miinante day am mën a am objectif yoo a atteindre lii def ñëw fàttali ñu lu bare bare bare ndax loo gis ci àddina rek continuité la yéen lii ngeen def tey ëllëgën si biir doom seen i sët leen di defal centième anniversaire kon su may defee quarantième anniversaire ñun ki nga xam ne ñoo fi nekkoon depuis mille cent soixante daanaka bi ñu ngi ko formé en 1962 ci ba nu dëkkee bàyyi laa ñu wàq na compétition sur le niveau régional national jël nañ ko mu am vingt cinq trophées yoo xam ne jël nañ ko boobu équipe nag mooy dox ba léegi mag ñi ko formé woon yàlla baax na dem ngeen ci ñoom ku mel ni grand Samba Ndaw ak Balla Diouf ak Violaay muy papa yi seen Mbay Saar ñoom ñoo ko formé woon ba léegi équipe baa ngi doon mais équipe bi avant muy egsi fii waa juboo tey ni waa naan defoon fii bopp jom jóge fi dem football bi juboo waa juboo ci bopp seen bopp boobu temps ñu nga amuñu équipe wàq naan moo am équipe a Baylaay ñoom RB muy Moussa Niang ak ñoom góor gi Ndiaye ñoom Simbaare te ñoo ñëwoon si biir ñoo naan bokk si benn équipe ñu doon benn équipe kon nag lii day loo xam ne symbiose bu yàgg la boo xam ne mag ñi ñoo ko diise mooy taw ba fii. bi yàlla defee bonu ñibbisi yàlla indi ñu ci doxal bi ñu ñëw fi en soixante bu fekk fi ñu ko di si waa bokk jot waa Brésil ex-Brésil daal di dem ci biir ji loolu moo indi turu jubóo bi ñu daal di bokk ñoom Charles Zéhan ñoom équipe bi ak kii Jali Sarr sama promotionnaire maa ngi yàlla na ko pour yàlla jéggal te yërëm yàlla na ko pour yàlla jàll yàlla ko pour yàlla jéggal yërëm un grand sportif Charles Zéhan aussi ndax ñoom dañoo xamal luy développement sport Charles de passage dinaa leen citer laay santé seede yàlla sportif la woon bokk jom daawul def dara du ci participer te boobu daal mu ngi jubóo kon benn anam animosité mosul am diggante bokk jom jubóo Charles Senghor ñëw na di entraîné bokk jom seede yàlla yaa ngi dégg loolu mooy dëgg fraternité boobu nag moo war a continuer tey bu diggante bokk jom ak jubóo ak diisoo ak kum mëni doon ñu def brassage bu nga xam ne dañuy def quelque chose de très solide yoo xam ne hormis même le sport war nañu atteindre ci seen objectif ndax benn ñoo fi ñëwandoo avec les mêmes problèmes kon ñun nous sommes la même famille objectif yooyu nag bi jéem a atteindre par le sport nag léegi day commencé ndax mooy source d'éducation bi nga xam ne xaye trop pour ma bañ a guddal daal maa ngi leen di jégalu di leen gërëm kon leen ne initiative bi na doon déclin bi lépp loo xam ne dafa amoon lëndëm lëndëm na lii doon déclin bi lépp li tax ba nit ma te lii bokkul yaa ngi dégg juboo ànd kon li nu bëgg duñu ko parce que ce qu'il nous il faut que gouverner suñu bopp fii ñu nekk ñoo ko moom